dara amagul dara dara amagul cinq minutes lañu war a bëree ku nekk am na quatre avertissement bëri nañ trente minutes ku nekk am quatre avertissement bi mooy seen dernière chance il faut pour da pour jël am il faut jàppante am pour jël am il faut kéwal ña nangoo Tidiane Faye moo ñu woon ginnaaw kéwal kanam nii Tidiane Faye Keweul dimanche 3 juillet 2022 fii ci arène nationale combat bi yàgg na yàgg na yàgg na cinq avertissement ah combat bi mujj na nul li ma ragaloon am na